félicité du nuyu sénégalais yeeg sénégalaises yëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaan yàlla suñu borom def ci réew mi jàmm defal ko ñu ko dëkkee man maa ngi tudd Xaadim samb maa ngi dëkk ci benn euh, village bu ndaw bu ñuy wax Njoppam Njoppam nag amul ci carte Sénégal parce que mi ngi nekk ci communauté lu Dendey région de Diourbel département bu Mbacké arrondissement bu Kayel soo génnee ndu la jëm Mbacké dëkk bu ñuy wax Ngaabu

waaw jërëjëf euh, xam nga man politique du sama métier waaye olof dafay wax ni lu yàgg ci njaw di ñaw man sama premier métier bi ma gën bëgg ci àdd mooy jaay mooy suma profession jaaykatu yàpp laa muy métier boo xam ni sama baay ci laa ko fekk fekk ci sumay maam yóbbu naa ko nag ci niveau bu kawee kawe ci àddina parce que bokk naa ci njëkk a def dibi mu dem France yóbbu naa ko Canada yóbbu naa ko Italie yóbbu naa ko Espagne mais politique nag li ma ci jëkkoon dugal ci àddina mooy solidarité ci jamonoy Cheikh Diop Anta Diop Cheikh Anta dafa dëkk-dëkk bu ñuy wax euh, caytu man sama baay yaay ma ngi dëkk-dëkk bu ñuy wax ñiig ci boori saate léegi nag bi nga xamante ni créé na parti ñu di ko néewal doole Nous ñu nekk ay xale Cheikh premier bawol sommes bi nga xam nekk na intellectuel ba savant ñun solidarité de 17 ans 18 ans ñu jënd ay carte 100 francs pour solidarité boobu sax xamuñu ci dañuy def mais ñun lañ jënd carte Cheikh pour solidarité biñ ci ci ba 22 ans 23 ans avant 30 ans 30 ans Cheikh ci la ba yàlla suñu borom dogal ma xamanté ak kuñu wax Idriss Seck à 87 vingt mu nek suma rak nek suma mbokk mm-hmm. vraiment ñuy essencé ci politique ba virus bi duggaat ma ma continuer non lay doxé mm-hmm. ci politique di dem di dem ba yalla suñu borom mm-hmm. euh ñu and ci Benno bokku Yaakaar ba yalla dogal 2012 le président Macky Sall gagné réew mi bi yàlla dogalee euh, parti réew mi nga xam ne ci ñi ko créé la bokk ci noyau dur bi la bokk bi ñu paree ci élection présidentielle ak législative parti bi am ñaari ministre muy Pape Diouf ak Omar Gueye ah. am 10 députés te man nekkuma ci sax planton te ma bokk ci ñi ko créé ah. ci la yàlla suñu borom dogal ma waxtaan ak Idrissa vraiment ci jàmm mm-hmm. dem créé benn mouvement tudde ko lëngoo mm-hmm. maa ngi génn réew mi le 29 mars

wolof laa naan ba pare jàng ko ba bu fekkee am na tey olof bu nekk sama man ci yoon yooyu laa bokk ci trois premiers yi laa bokk donc tur yooyu nag ay turi aadala ak ay turi cosaan parce que bu jëkk buur yi fas yiñ daa war dañ koy wutal tur bu ñu bu boo faloo buur lii ñuy wax tey première dame moo doon lingéer lingéer mooy jigéen boo xam ni sa jëkkër mooy buur yaa desu tous les femmes mooy première dame tey donc nag lëngoo tur la turu fas sama maam dafa amoon fas tudde ko lëngoo ñu ne ko lu mu tekk mun dafa neex waaye koo bàyyi mu demal ak au lieu kon nag man may def yeneen tur yi tubaab yi yeneen tur yi français yeneen tur araab yi man ma indi tur woo xam ni ci réew mi la dëkk réew mi ku ko dégg xam ko loolu mooy lëngoo lëngoo mooy ñaari nit yoo xam ne ku ne dafa jël sa loxo teg ko sa moroom loolu mooy lëngoo waaw léegi objectif bu maanaam lan nga lan nga fa yéene ak mouvement bi waaw mouvement bi xam nga maa ngi ko créé le 29 mars 2013. waaw maa ngi ko rendre président Macky Sall le 30 mars 2017. objectif euh, objectif mouvement bi mën naa wax ni atteindre nañ suñu objectif ci tous les côtés. waaw parce que dama def 50 pour cent social def 50 pour cent politique. mais bi ma ci pare ci liggéey ma ci liggéey ba pare ba am 20 000 membres. parce que le 29 mars. laa ko créé 2013 maa ngi ko rendre président ci stade Ely Manel ci Diourbel le 30 mars 2017 maa ngi ci 20 000 membres donc objectif moo doon def naa social ci ñeenti at ci loo xam ne lii jàpp naa ni marqué naa sama empreinte suma réew ci àll bi ci wàllu ay moulin à mine ci wàllu ay moustiquaire ci wàllu consultation gratuite ci wàllu solidarité ci ci ci ceeb ci suukar ci meew ci diwlin lu ci nekk euh, def nañ ci suñu sunu kemtalaay kàttan li nga xam ne ni yàlla suñu borom mën nañ nanu ko léegi nag bi yàlla dogalee ki nga xam ni moo taxan ma créé ko pour rendre ko hommage muy le président Macky sàll ci laa ko ni am na ñeenti at donc am na ñeenti at ñu ngi ci ñaar fukki junniy nit man ak 20000 membres yooyu le 30 mars laa ko ne léegi bokk si nañu ci yow ànd ak yow parce que dañ la doon wutal ay nit am na dañuy continuer wut bi nag feek mu ngi nekk ci bopp réew mi di ko jiite dañuy continuer di ko accompagner ci 24 sur 24 ba ba muy jeexal li ko yàlla sunu borom incha allah uh-huh. élection législative yi di ngi ñëw élection falu député yi yow sa mouvement yow yaakaar nga ne yow di nga ci bokk maanaam pour nekk député wala amoo yaakaar amoo xalaat boobu. non non bi xam nga bu fekkee ne dama ko créer pour nekk député dem compétition am taux bi nga xam ne boo ko amee dem assemblée du ma ko joxe mouvement bi wax naa la du lu ma moom mouvement bi dama ko créer uniquement pour président Sall donc fi mu ni actuellement. man suis le coordinateur national mais le président national mouvement logo c'est le président Macky le gardien de la constitution ah, donc mom moy xol fu mu je ni manal nako fa dara ma ni ma la jaar rek ma fa su ma continuer ci mouvement bi ko ci continuer parce que compétition mhm. way ak non man dama demalon son bop mais ngi suma commune 98% des 32 villages la 98 l'a gagné ci donc xam kon man dong ah. def résultat ah. waye nak mbir soko ko liggéeyee ag nga ko droit ci jëm mm-hmm. mouvement bi jëm légui président Sall xam mm-hmm. fu mu ni manal nañ ko fa dara mm-hmm. su ne ma ma toute façon ak mouvement bi ñu ngi continuer di parce que ñu ngi ci mille membres parce que bi ñu jógee Diourbel le 30 mars ñi adhéré euh, maanaam bu ñu xëyee amatuñ ci ay carte lu doy. te li ci gën a yéeme parti yi fi jaar ca ngalandoog belees kenn ñi ma wut a mas a jaay carte cent franc mouvement lëngoo rek mooy def moo imprimé vingt quatre mille carte membre ñu jaay ko carte téeméer mais nag ci biir carte téeméer yooyu may jaay amul benn dërëm bu ci dugg ci keesu mouvement bi parce que responsable bu carte jox dama lay wax que mouvement bi ku rek d'après président Macky Sall mais temps yi euh, ñoo ngi waajal législatif gis nañ APR. coow bu metti dafa am ñoo ngi rayante seen biir xiiroo ngaayoo te ñëpp xam ne ne yow ti ne pas n'importe que si biir réew mi ku am kaddu nga si biir réew mi euh, donc koo xamante vraiment da yàgg di dox jàmm si biir réew mi yow ban appel ngay lancé par rapport président Macky Sall ak ay partiyam ak doxalin bi nga xamante ne moom la ñuy doxalee si biir réew mi vraiment loolu parce que day ñàkkuloo APR bu continuer nii bu dee yow am nga si xalaat. waaw xalaat bi ma ci am rek euh, laaj nga ma laaj bu am solo. xalaat bi ma ci am rek mooy euh, nit ku ne ñun li ñu jàngal li ñu sunu baay jàngal ak suñu yaay ak suñu diine ak sunu sëriñ sunu yaakaari àddina ak àllaaxira muy sëriñ Touba nit boo amee kilifa danga koy roy ci jikko ci doxalin ci jëf parce que soo xoolee tey président Macky Sall bi muy créé bi muy créé APR yaakaar wéetul na trop mais gëm yàlla ak kuraas ak dal moo tax mu dem ba yàlla jël réew mi teg ko ci loxo kooku nag koo xam ne ba muy wut teraangaam àndoo ca woon jàppale ko gunge wuloo ko xëy na sax yow yaa ngi nekkan feneen kooku su amee teraanga ne la kaay lu bokk ko la rafet mooy nga ànd ci ak yar ak teggi ci biir APR nag ci seen bopp man li nga xam ni moom laay santaane di ko ñaan mooy parti bu toll nit APR yaakaar ci at yu néew yu mu am jiite réew mi foog mu am coow mënta ñàkk waaye nag coow li nay nekk coowul biirub néeg waaye bu nekk coow pénc ak bokk duñ ko defar ci pénc ak bokk dañ koy defar ci biirub néeg ba mu rafet ñu génne ko ci ëtt bi ñëpp jàkkaarlook moom parce que bu duggee ci biir néeg bi ci coono waaye bu ñu ko defee ci néeg ba ba mu rafet dañ koy génne ci biti ñëpp jàkkaarloo ak moom donc li ñuy lijjanti ci seen biir nañ ko lijjanti ci ñoomu neen te bañ a génn ci biti bañ a génn ci média yi bañ a génn ci coow li parce que ñaari affaire laal ci bëgg a yëgal képp koo xam ni kii yaa ngi nekk ci biir territoire yu Sénégal ak parti boo bokk su fekkee xool nga comportement wu président Macky Sall da nga war a mën a ànd ak dal ndax lu ñuy wax nit ci àddina mu fetal wax nañ ko ko mun a teg lu ñuy wax nit mu tontu wax nañ ko ko mun a teg li am nag mooy li ma leen di wax mooy bu fekkente ni bii bëgg nañu seen jàmm wala ma ne su fekkee bëgg nañu sunu jàmm. boo àndeek kilifa muy wut da ngay ànd ak moom wut ba pare ba mu am nga door a laaj parce que defagoo sa dawaar di laaj say droit man xaw ma loolu xam nga man lu ma xam dem ba def résultat man 2012 bi mu jotee réew mi fekk ñu dàq ma RTS sans droit mu delloo si ma dama ko ni du ma ci jot li danaa la woon ne yëf yi nekkul ci juddu nekkul ci tur nekkul ci askan baaxee nekkul fenn fudul ci liggéey. ak jox sa confirmé nit ñi ak sa parce que ci histoire Sénégal créé Baye Ousmane Camara à nit a meeting stade a un sourd de sodi te joxewuma joxewuma def na carburant transport ak restauration def na mais lolu li tax ma waxan ko ko mooy dama ko noonu dinaa la woon ne du ma yem ci ànd ak yow di la jottali ndax danaa fexe ba sa mbooloo ma yokk ko boo liggéey kon li nga xam ne moom moo am solo tey fexe ba yàlla suñu borom dimbali ñu élection législative yi ñu dëgmal nun ñëpp nu àndandoo bennoo Bokk yaakar ak APR ànd ci ànd bi gën a rafet dem ba nekk majoritaire assemblée national pour président mën a liggéey continuer liggéey bu rafet bi nga xam ni cël na ko muy Sénégal émergence parce que lii mu sumb ci Sénégal ci ay yoon ci ay université ci ay lycée ci ay hôpital ci ay mosquée ci këri gan ci këri diine yi boole ko ak xoolal tey jalis ni mu jafe woon xool place Sésame xool li mu wàññi un chef d'état bu buukale cinq ans ci sa premier mandat mosoo yokk benn centime ci Sénégal yàlla baaxe ko nag ñu am tey courant courant bi doy na macha allah may rendre hommage de directeur général Sénélec mais xoolal tey ci époque am la gaz feeñe ci la pétrole feeñe parce que nit da koy nungul li yàlla suñu borom dogal ci moom xam nga man soo profession jaaykatu yàpp la mais aéroport bi gën a diisi ci àddina su ma wàccee cent personnes ñoo may teeru muy Atlanta kon nga xam ni nit ki da koy nungul yàlla suñu borom moo def ci époque am moom la xéewal yooyu yàlla feeñale ko Sénégal parce que ñi fi jaar ñëpp wut nañ ko bëggoon nañ ko ndax kenn ku ne boo ayee gis nga jeeg jeeg bu ay bëgg sax ay gën a neex sa ay ak kon ak ayam moom yàlla neexal na ko ñu ànd ak moom nañu ànd ak yar ànd ak teggin rafetal aussi seen i kaddu te képp ku yëkkati kàddu di tudd président xool ni nga koy tudde benn président symbole la président dafa solonel mhm. président institution la mhm.

am na ci ñoo xam ne amuñu menn maam mu mas a jox chef d'état la ko ci àddina am na ci ñoo xam ne amuñu benn xeet bu mas a dugg pale di fa añe mbaaga di fa reere kon su président Macky Sall la ñëwee ànd ak soxnaam su baax sii di première dame mu ubbi palais bi sénégalais bu ne ak sénégalais bu ne am fa droit dugg ña dugg dañ ko war a rafetal parce que commencé ci man benn waaye def ma ne woy lu tax yow nga concentré wu sa lépp nga jox ko président ma ne ko sama xeetu ndey ak sama xeetu baay ba mu daj suma xeetu ndey ak suma xeetu papa maa ci jëkk dégg kaay wuyu président kon il faut ma honorer loolu il faut ma faydaal ko il faut que ma marqué ci suma empreinte soobee yàlla euh, ci histoire yi Sénégal ci Afrique APR mooy parti bi juddu amul juróomi at jël pouvoir foog mu am coow ñaareel bi mooy opposition bi xam naa leen parce que ca laa nekkoon yàgg naa ca ànduñu ngir yàlla ànduñu ngir wóoloonte ànduñu ngir bëggante parce que dañuy xam ne ci média laa nekkoon muy premier rajo privé au Sénégal ku nekk ci opposition mas naa laa invité laaj la ci sa moroom nga wax ca la nga wax loolu su ma ko dégluwaatee tey damay permettre ma xamni and ànd bi ngir yàlla jaaxlee tax ñu def ko. opposition bo xamni bi légui dama lay laaj opposition bi yi ci and kan mo ci wóolu boroomam bu ñu demee ba toog xalé yu am 40 ans xalé yu am 50 ans xalé yu am 57 ans 58 ans. kenn rek a ci am 60 ans ñu dem ba ne nañ jëli président Abdoulaye Wade ci 92 ans jiital ko nga xamni ni dañu bilibaane donc opposition mom position ci ni ñu ko Cheikh Anta Diop jàngale woon programme la ak xelaat mais du waxante lu bon du saaga du xeex du xuloo opposition bi ànduñu opposition bu ànd mooy ñoo xam ne ñii dañu bokk objectif xamante kenn ku ci nekk wóolu sa morom mais actuellement bu ñu demantey jii ku ñu opposition bi kan nga yaakaar mën nañ ko tànn jiital ko tey ku ñu mën a tànn tey jiital ko laa lay laaj ñu ngi may dégg boo xoolee opposition bi ñoom ñépp xam naa leen xam nañu ma bu baax nag du xamante ci biti xamante ci biir ak ci biti donc ñoom tey kenn rek laa ci gis xamaluma ko dara lu dul ci liggéey laa ko xam muy Malick gàkku mais ñi ci des kenn ku ci nekk am nga foo nekkoon am noo askan lewoon sa morom ak bët yoo ko daa xool ak loo ko waxoon ñoom ñëpp kon tey bu ñu àndee ne dañuy tekat dara xam nga fu ñuy mujj ñoom ñëpp ñëw ci président am na si ñoom dañoo tàmm nguur mënatuñoo galérer xanaa xamoo ni da xam nga Madia Diop synthèse maa ko mujj interviewé ci àddina mu ni ma am na syndicat yoo xam ne dañ ko créé pour alimenter wu mais am na parti opposition yoo xam ni créé wuñ ko am na ñoo xam ni wóor na leen duñ jot ci réew mi am na ñoo xam ni wóor na leen ne bu fekkan ni caaxaan am na tey ay parti yoo xam ne ñu ngi ci réew mi tey lëmb le réew mi lakkale maa leen ëpp majorité am na ci parti yu amul dix mille personnes ah, léegi dama lay laaj parti bu ñemewut a congrès parti boo xam ne woo def meeting yaa ngi yem grand théâtre Sorano ak Cissés parti bu ci wóolu sa bopp wala mouvement bu wóolu sa bopp da ngay woote sodi nga dem Tamba wala nga dem Diourbel wala nga dem euh, euh, Maka Koulibantang wala nga dem Kébémer wala nga dem Linguère nga mitin fa comme ni Aly Ngouille Ndiaye def Aly Ngouille Ndiaye bu mitin dafa dem Linguère man bu may mitin dama ñëw stade Ely Manel dama fi bàyyi Sorano Sorano xam nga ñaata nit lay def 1000 membre 1000 personnes lay def grand théâtre bi gën a rëy ci biisu Sénégal yi mille 1800 personnes lay def dafa yomb a feesal boo wootee di joxe ay sa tëggi sabar invité benn vedette wala nga invité mbëri làmb yi ñu bàkku ñu dégg seen foofa mu fees feesal nga ko mais feesaloo ko ci ay nit man bi may natt sama bopp dama ne bu invité wu ma kenn pour mu indil ma nit képp ku bokkul lu nga soxlawu ma la ñu ngi may dégg loolu laa def dama ne képp ku dul membre wu mouvement lëngoo bul ñëw Jurbel responsable yi nga xam ne dañoo ñëw bokk APR ak benn bokk yaakaar dama ne kenn ku ne boo ñëw àndal yow dong wala nga ànd ak saatu fee muy maire di responsable bi ku ci mën a doon ñu may dégg donc loolu mooy li ëpp solo mooy li solo ma parce que nekkoon nga ci parti jóge ca créé boo créé da ngay liggéey def résultat wane mais nu génn grand théâtre nu génn CICES nu ngu génn Sorano parce que léegi boo xoolee tabarkàlla rajo yi bari na télé yi bari na ñu bokkuñu gis-gis ku génn ñu topp la ku wax ñu dëkk la micro nga wax lu la neex te amul kenn kuy génn ci àddina wax te doo am ku ne dëgg la parce que noonu la yàlla bindaa àddina mais li ma gis actuellement président Sall lii mu liggéey ci juróomi at ci ay yoon ci ay tali ci ay dëkkuwaay ci lycée yi université yi wàññi dund bi wàññi paj mi yokk xoolal surface yu bi mu def tey ci plateau technique yi am tey Ziguinchor jalis da nga daa gis kuñ tey tëral ci ci ay matelas juróomi matelas la ñuy tegale mu jóge Tambacounda ñu indi ko Dakar pour mu def jalis léegi dootoo ñëw dootoo dootoo ñëw Dakar Thiès Touba xoolal tey dëkk bu toll ni Touba mu def pause première per hôpital yu quarante et quelques milliards xool jam ñaaju bii ni mu ko ni mu ko éclaté tey donc kooku li ma koy ñaanal man mooy gudd fan gu ànd ak wér ak wér la jeex na mais la reste moom ci kanam la nekk rawati bët te ñëpp danañ teg seen bët donc euh, mouvement bi moom maa ngi ciy sant son borom di sant aussi mbooleem ñaar fukki junni nit yi nga xam ne ñoom laa àndal parce que mouvement bi man maay coordinateur national bi parce que maa ko créé mais ñun ay démocrate lañu man damay toog ci cinquante personnes yëkkati benn proposition teg kenn jóg su ma plantoo jóg ne ma monsieur le président ma ne ko woy mu ne ma d'accord ma ne ko prenez place mu jël place ma ne ko c'est la parole mu wax lu gën a baax li ma wax ñu adopté li mu wax. gis naa ko man fekkee naa ko. man noonu lay fonctionné donc maa ngi leen di félicité. di leen ndokkeel. di wax ni ñun ñu ngi gën a taxawaat feddali suñu laxasaay. parce que ñun li ñu suñu objectif mooy président am quatre-vingt-dix pour cent. assemblée nationale. Eh, dogguma la ah est-ce que campagne bi am nga ci programme bo wara dérouler quoi par rapport pour japp ci législatif bi quoi mobilisation ak sensibilisation par rapport sa membre yi. man à part parti au pouvoir. waaw kenn gënuma bax programme ken gënuma am yaakaar ken gënuma dëgër ci suma plan stratégique bi nga xamni tek nako parce que 45 départements yi ak 14 régions yi dama ko sillonné man yoruma nit ñaar témèr ay gor laa àndal yuruma dama la ne vingt mille membres laa yóbbu Jurbel stade Ely Mané la trente mars joxewuma mbubb wootewuma samedi wootewuma dimanche joxewuma ñaar téeméer man ñi ma àndal conviction lañ am dama leen woon programme Sénégal émergence parce que dama jël président Sall dama ko dessiné loolu nag foog nga am technique parce que man technicien la dama dama dama jël président Sall taxawal ko ci suma 16

mu wàññi location ñu dox at mu wàññi gaz xam nga gaz bi président di ñëw boo joxee 5000 francs bi presque 700 francs lañ lay delloo ci ci benn butéelu gaz programme boobu laa indi indil leen laa Touba indi boo génnee tey jii fii ci Hann Marinas boo fëlee signal jëm Lompul boo fëlee signal. man am naa soxna mbuur su ma su deuxième femme mu ngi mbuur am naa fa kër depuis vingt ans am naa fa bureau maa ngi fay liggéey mais léegi damay xëyee sama kër ci mbuur maay jiitu si ñi dëkk dakaar RTS vingt minutes trente minutes ñaareel bi mooy nga xool tey këri diine yi tous les chefs foyers religieux parce que man doomi daara laa xool naa tey këri diine yi bu màggal ma saa ñëw wala gàmmo ñaata la ñuy fay ci ay baas ay 40 million 30 million 50 million la këri diine yi daa fay ci ay baas ak sonorisation tous les foyers ba ci jàngu bi foyer religieux yi tous les foyers religieux muy diine l'islam bi ak diine chrétien chrétien bi fenn fu ci nekk président la mu njëkk a def mooy màggal nitu yàlla boobu nga xam ni am na lu mu liggéeyal yàlla bañ topp boo duggee ci jàng bi tey da ngay kontaan donc programme boobu moom laa tëral won président su may nit won leen li mu liggéey ba pare nag won leen fi mu jëm ba 2024